mbokk yi maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant gannaaw bi ñu sante yàlla mu ñu may ñu fekk fii ci euh, Saly dañu ànd ak euh, préfet bu département de Mbour ànd ak maire Saly ak euh, kilifa yi jiite kuréel yi nga xam ne maa leen yilif muy ASPT mais c'est une promotion touristique di SAPCO mi liggéey ci lépp qui le ci aménagement touristique ñu ñëw tey fekk qui liggéeykat yi nekk ci tourisme parce que bu ñu nee tourisme tourisme du hôtel kese hôtel yaa est ci dëgg la waaye guide touristique yi ñu ngi ci maanaam ñiy gunge waaye ñëpp ñuy yëngatu ci wàllu tourisme également dañ ci bokk ñëwoon tey pour euh, xoolal sunu bopp ubbite bi nga xam ne tàmbale na ci hôtel yi fii ci Saly ñu tuddee ko ci nasaraan relance touristique après Covid ndax xam ngeen mbas mi bi mu tàmbalee ci réew mi ci mois de mars dañu tëjan lépp luy hôtel waaye tamit tëj lépp luy aéroport donc hôtel yi toog nañu mat ñett ba ñeenti weer yoo xam ne kenn ubbiwu ci semaine bi la ñu tàmbale moo taxoon ma waroon ñëw pour xool est-ce que charte yi ñu tëral ci waru aar kaaraange askan wi est-ce que charte ñu ngi koy doxal bi ci njëkk mooy li ñu def protocole sanitaire mooy natt tàngaayu yaram yi mooy raxas loxo yi mooy fexe ba nit ñi seen jegeyantoo du weesu dayo loolu yëpp nekk loo xam ne dama ko xaatimoon ci ab benn bataaxeel ma jox ko hôtel yi ne lii war ko saytu ñu ne hôtel yi ni ngay toll day laaj nga am docteur bu nek ci biir hôtel bi mba infirmier lolou aussi gis naa ne fii ñu nek ci sali ñom respecté nañ ko manam amna ñu nañu kat bi fi nek waaye tamit amna ñu néeg yo xamné dañ leen ber néeg yo xamné dañ leen ber pour que bu yalla dogalee ñaan nañu ko yàlla waaye bu ñu gisee ko xamné ne bi da ka jot mba amna ñu ci xel ñaar ñu mën ko jël wétal ko ci néeg yo nga xamné dañ ka ber ndax lolou dafa nek lo xamné dafa bok ci charte yi waaye it ni ñuy saytoo nit ñi ni ñuy lekkee ak ni ñuy saytoo restaurant yi loolu yëpp nekkoon loo xam ne euh, ci charte bi dañ ko tëral ndax kat bu fekkee nit ñi euh, comme ni ñu daan defee buffet ca ba njëkk ku nekk day ñëw servir jël assiette servir bàyyi keneen ñëw jël servir bàyyi boo dañuy lawante jàngoro bi moo tax gis nañu ne également ci biir euh, hôtel yi loolu aussi ñoom taxoon nañ ci bàyyi nañ ci xel. kon lepp lo xamne ne jëm na ci geste barrière ni ñuy nettoyer néeg yi war ko ubbi pour que ña nga xam ne liggéey ci biir hôtel yi ñu tuddee kon également euh, les gouvernantes ñom tamit ñu baña loru waye aussi clients yi aussi baña loru bala ñuy ñew ci néeg yi ñu mën ko également désinfecter lool yëpp waxtaan ci ak ñom te gis na né taxaw nañ ci té préfet département de Mbour mi ma andal wax nak ko aussi euh, gannaaw bésu tey bi aussi ñu bay ci xel te gis na né aussi police Mbour commissariat bi nekk euh, fi ci Saly commissaire baa ngi def liggéey bu mucc ayib ndax gis na sen teway gis na len sen teway ci plage yi seen teewaay ci biir hôtel te nonu la président bi aussi Macky Sall noonu la bëgg ñu saytu walu secteur touristique pour que ñuy gis les forces de défense et de sécurité pour non seulement mbass mi ñu mën ko xex ba daan ko waye aussi ña nga xam ne fi def nak sudul nonu ci biir hôtel yi ñu aussi ñu mën leena euh, jakarlok ñom ak ñoom éliminer leen parce que mënuñu nangu tamit nit ñi di liggéey ñoo xam ne seen yoon nekkul ci liggéey bi ñu bëgg ñëw di ko yàq loolu tamit vraiment gis naa police taxaw na ci te ñu leen di jaajafal ci loolu kon loolu nekkoon li ñu waroon njëkk xool mooy protocole sanitaire bi waaye aussi ñu gis ne li ñu naan taux de remplissage maanaam week-end bi nga xam ne muy ko ne 15 août ñoom ñëpp nee nañ ma 100 pour la ñu feesal maanaam néegi ñu ubbi yëpp fees nañu waaye am na ñu ma tawaat nag nee nañ ci biir semaine bi dañuy gis ne loolu wàññeeku na moo tax damay lancer un appel vraiment dañ ñaan wa Sénégal yépp ndax wa Sénégal réew patriote lañu manam ñu bëgg suñu réew lañu euh, dañu né la destination préférée des du Sénégal doit être des des Sénégalais doit être le Sénégal manam nañu fexé ba képp ku nekk ci ñun nga béy sa waar bu boy jël ay vacances ñu jël ko vacances ci sunu secteur yi nga xam ne ñooy secteur touristique loolu nag lu mën a nekk la ndax nii la ko waa Sénégal defoon ci Air Sénégal bi ñu koy tàmbalee jafe woon na waaye waa Sénégal ñoo ko jàppale ba tey Air Sénégal moo nekk jiitu na ci boo demee aéroport AIBD Air Sénégal moo ci client bi gën a rëy actuellement loolu waa Sénégal la ko def donc maa ngi leen di ñaan loolu ñu def ko ndax dafa nekk loo xam ne ñu tuddee ko tourisme domestique non seulement day baax suñu koom-koomu réew ndax alal bi day des ci biir réew mi waaye tamit danaka mën amuñu il faut ñu ndax yi dañuy ba Sénégal ñom ñu téy leen seen pour que alal bi ñu Sénégal ñu ko biir réew wa bu devons yenen réew ñom ay nit pour alal ah, nga la ñun kon ngi ñaan vraiment képp ku ñu nekk ñun nga def lool ñaan particulièrement service état administration D'abord, ministère keroog maa ko wax ci kanamu euh, président de la république mangi ñaan ministère yépp ku nekk nga joxé tegtal pour que say service jël ay vacances ci sun hôtel yi fii ci Sénégal way tamit service état yi nga xamni ñoo rax euh, botu ci état yu melni ni Sénélec yu melni ni SDE société mag yoy yépp ñu leen di également lancer un appel pour que ña daan def ay colonies de vacances mbaa di dem ay vacances ci yeneen réew ñu ngi leen ñaan vraiment ñu def ko biir Sénégal ndax que loolu mooy njëriñu réew mi té it Sénégal bu daano kenn du ci mucc kon ku nekk war nga ci béy sa waar dugal ca loxo mais aussi entreprise yi nekk Sénégal muy entreprise privée yu mel Sonatel Orange parce que seen chiffre d'affaires kat Sénégal yeeg ñokoy def bu fekkee Sénégal lañ nekk ci ay jafe-jafe ñoom buñu ñu deful ndànk ñoom nañ mujj nekk ci ay jafe-jafe donc nañu fexe ba entreprise privée yi ku nekk également nga béy ci sa waar dugal sa loxo ci mbir mi parce que dafa nekk xeex boo xam ne kat ku nekk ci war a jàpp te Covid bi mbas mi daf ñu won ne réew mu nek war nga baye xel ci la nga mom ci la nga xamné mo mo la djégé parce que moy euh muccal sunu koom-koom kon taux de remplissage boobu nga xamné ci biir semaine bi dess na appel bu lay lancé mais aussi aux citoyens sénégalais comme nii ñu ko gisee fi tay ay famille lañ ci fekk ay famille sénégal lañ fi fekk kese ñoo fessel 100 kon niñ ko défé 100 deug la nak xam comme vacances jotagul xajna ci biir semaine bi na xawa jafé mais fi ak école yi tëj vraiment bu fekkee entreprise yépp ku nekk dugal na sa loxo administration yi ku nekk dugal sa loxo maa ngi ñaan képp kuy def séminaire vraiment ak proposition yi nga xam ne waa secteur privé nañ ko def ñu def ko ci anam boo xam ne dina dina baax li may daanale mooy gis ngeen fan yi yëpp ci télévision yi ak ci journaux yi euh, ASPT mu ngi def campagne bu am solo ñu fi tuddee ko taamu Sénégal ku nekk nag na ci jéem a béy waaram vraiment ñu ngi ñaan ñëpp def ko parce que loolooy tax ëllëg relance bi nga xam ne bëgg nañ ko def Sénégal mu am point yi nga xam ne ci la ñuy defee relance secteur touristique après mbas mi wax naa bi ci ëpp solo mooy euh, relance dooleel crédit hôtelier touristique gis ngeen ne ci biir ci biir mbas mi crédit hôtelier touristique moo tax entreprise yi ñu mën a aar entreprise yi d'abord hôtel yi ba daanuwuñu waaye aussi ñu mën a préserver les emplois maanaam fexe ba xëy yi nekk ci biir entreprise aussi ñu mañ leen a bañ a ñàkk Nak tay gis ngeen hôtel ñu visité muy Lamantin Amarilis euh bu fekkoonte travailler? yi maanaam ñi fi liggéey fekk ñu leen fi bu fekkoon amuñu on xaliss pour fay courant fay ndox mais ubité tay bi du mëna nek nekk nak li tax ñu am ko moy crédit hôtelier bi nga xam mo leen financer seen besoin en fonds de roulement financer aussi une partie de l'investissement donc crédit hôtelier bobu nous réew mi joxe na pour que 2020 2023 ñu dugal ci xaliss bu bari pour ñu dolel ndax moy jàppale entreprise aussi ci walu investissement niñ ko defee ci crédit hôtelier aussi non lañ ko defee ci crédit transport aérien donc loolu am solo la ma bëggoon ko bëggoon ko wax euh, secteur privé pour ñu bàyyi xel ne loolu lañ ko wax